mais on n'a pas senti passer. oui on n'a pas senti passer yow remercier du doy dama bëggoon nga xam ni au nom de digg penc li nga def exercice bii nga nangu def ak ñun dafa yombut ci fiñ ci toll. souvent da ngay am ñooy woo pour ñoo ñu wax ak waa réew mi ñu ci teg ay contraintes yoo xam doo xam sax finalement ñii ndax réew mi tax di wax wala dañ am seen confort bopp yow fuut a nga nekkoon mu metti nga def trajet bi ma xam ci dara teewul nga ñëw joxe sa kàddu ñëw toog ak ñun pendant presque trois heures de temps. ñuy waxtaan waxtaan boo xamante ne entre de vrai gentleman ñu exercice bi yombut loolu yombul moo tax ñu lay gërëm di la sant di wax nag à travers ni nga defee nii ñu bëgg réew mi ñeme ko c'est le moment ñu ñëw wax ak waa réew mi ci contexte bi xam ni. ñun on est là débat bi muy wax. su ko defee ñun li ñu soxla rek mooy li nekk ci dënn nit ñi ak seen li ñu yéene réew mi ñu ñëw sotti ko fii su ko defee. Euh, et puis gaa ñaa ngi fi ku ci ne fa nga gisee na nga xalaatee contradiction boobu noonu moom mooy def charme suñu plateau yi sénégalais yi nag 2024 après ñooy décider moo tax ñu ngi lay gërëm di la sant ci na nangoo ñëw ci digg penc bi nekkoo ci périphérie bi ah daa ñëw ci digg bi waaw sénégalais yi wax gaa yi dem moo ngeen bàyyi xel ah. bi mu leen jox ah. ngeen génn ñëpp waaw ñoom journaliste yi waaw waaw man je suis ancien journaliste wax naa ko 2012 laa gëj a toog ci rédaction et je l'assume ancien journaliste. en tout cas la may wax moom 2012 laa toog si rédaction bi le message oui le message. ça fait di digg penc bu dul loolu man. merci Bachir jërëjëf ma ma sant leen ah. c'était un débat voilà à bâton rompu. loolooy démocratie Sénégal. bon faut pas s'attendre toujours à ce que ñu poser la question yu la neex ah. <laughs> donc je suis <laughs> voilà yaa ngi woon dans dans dans ce rôle. voilà waaw wax dëgg yàlla on est très fier tey euh, euh, leen kattan ngeen continuer et puis convaincre nag gaa ñiy ah, naa leen ko bu kenn toogul da leen jox na réew nee naa leen Macky da lay taqal mayonnaise ba nit ñi foog ni yow voilà di am ci yow benn kii mais diggu penc moom fi ñëw mu leer. Eh, war nga def annonce ah? balaa arab jeexal. moom mooy jigéen jigéen candidat a teg tànkam. Mm-hmm. ah yéen a ngi moom la Anta Babacar nan ñëw. Ah, euh, ak ñeneen ñam nan ñëw. non Anta ah. non gars dinañ ñëw. gars dinañ ñëw bu neexee Ah. digg penc moom ku fi jaarul jàppal ni <laughs> ah tu as en tout cas tu as tu as tu as zéro virgule cinq pour cent de chance pour ça jàll parrainage <laughs> ah non mais c'est clair parce que fii kenn du fi naxaate ah. déedéet y a que des voilà. waaw ah. Thierno un éternel incompris Bachir ak xam-xam gu bari gi Pa Moussa ah, mooy loolu. Euh, non non ci gars yi non man. aw ma problème man man man man. yaa sama avocat sax léegi. man ñëpp lay comprendre. <laughs> mais en tout cas en tout cas euh, madame la future prés euh, présidente. yàlla na suma yàlla def barke ci suma parce que bugguñu. wax dëgg yàlla lenn lu dul dénk Sénégal koo xamante ni daf koy delloowaat les Sénégalais et pour man on doit continuer vraiment le combat sur une élection inclusive tout le monde doit participer élection yi ñu jëm 2024 ginnaaw ba Macky sàll ay la yewoon dem nga ba reconnaître ni mënuloo ci bokk nga la waaye li ci des na rafet libérer les otages politiques libérer Ousmane Sonko et qu'on laisse tout le monde participer au moins pour cette fois si sénégalais yi ñu xa kenn dootul jiiñ kenn ni ñu politiciens yi ñoo ñu def lii wala ñoo ñu def lee ñun ñoo tànnal suñu bopp waaw candidat takar naa si débat yi entre candidat takar naa si jaajëf ah, ñoom coom Babacar euh, Boukounta euh, ah, café gi ñi naan ndox ba naan sama butéel ñëw di maye kontaan nañu si yéen bu baax a baax ñu joxante rendez-vous euh, beneen jeudi incha allah du ñàkk yeneen plateau ñun dinañ gisewaat jaa ngeen jëf ñu fanaan